du nuyu kilifa diine kilifa aada yëpp du nuyu suma sëriñ notre responsable moral bu daayatu Moustarchidine wal Moustarchidaat muy Seydi Mouhamadul Moustapha Sy di ko ñaanal yàlla gudd fan yàlla aar yàlla sàmm ko ci barke yonent bi di ziyaare ñëpp si jumaa mu barak bi tey nag euh, ñu ngi fii si Wakaam ñoo sees ki nga xamante ni waaw nekk koo xamante ne suñ papa la papa bu ñu sopp lool ndax kon li ma wax rek tur bi nga xamante ni moom lañ ko dàkkalante muy sëriñ Cissé bu sëriñ kër si mu nekk koo xamante ni maam Babacar kon ni may wax rek mu nekk koo xamante ni ko soob sama maam ji sama xarit bi nga xamante ni su ma jaaxlee rek wax dëgg yàlla moom laay woo mhm. moo tax ma ni sëñ Cissé dama ko sopp ndax ki nga xamante ni sëriñ Babacar si bi nga xamante ni moom moo ñu boole mhm. ñu fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moom mooy combat Modou Lo ak mhm. Ama Baldé ak ki nga xamante ni moom mooy Boy Niang mu nekk combat boo xamante ni nag gisoon nañ Modou Ama balde te ndimbal yàlla suñ borom ñu gis ñi tamit mu communiqué ci te nam ci communiquer gis nañu combat bi noonu la réussir tey nag démb ñu fekk ko ci ki nga xamante ni moom mooy ci Modou ba tey ñu gis ko nag Sëñ Cissé la mu waxoon ba tey loolu la waxaat dañ koy bàyyi nag mu nuyoo ñu dugg ci waxtaan bi di ko ziyaaraat bu wér sañse bi nee naa ko tur bi da koo wuyu ndax taalibe Cheikh dafay mën a sañse <laughs> macha allah maa ngi lay ziyaar sëñ si. Euh, bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin laa xawla wala quwwata illa billahi alil asim rabbi sarah li sadri wa li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yu baax yi mbokk internet yi yéen ñi nga xam ne waxtu wi tembe yéen ñuy bàyyi xel ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara rawatina waa diaspora yi di leen ñaanal yàlla tawfiix ak sutura fañ mën a ne rawatina fii ci bitim réew di leen ñaanal jàmm ak tawfiix di yàlla na yàlla defal leen ko di leen nuyu ci baatu asalaamaaleykum di ci ànd ak sunu soppe sunu jigéen sunu mbokkum pas-pas fa tabaarakallaahu ñu am kontaante pour waxtaan ak moom ci mbiru xam-xam rawatina actualité bi lëmbee réew mi muy làmb ji incha allah bismillah soxna soxna si. Euh, sëñ Cissé mu sëñ Babacar ñu gis ni léegi euh, dafa am loo xam te ne dafa commencé fréquent ci làmb ji mooy ñi nga xam te ne donte ay ñaankat lañ mais dañoo gën a focus ci li nga xam te ne moom mooy ci làmb mais sëñ Cissé du ma ne lan moo ko booleeg Modou Lo lan moo ko booleeg làmb ndax gis nañ ay mbir yoo xam te ne yaa di ñaanal mais fësul mais surtout sa waaw euh, jërëjëf laaj nga ma question boo xam ne kontaan nañu ci lool xam nga ànd bi ci gën a neex mooy nga ànd ak ki nga xam ne xam ne ne yaa ngi ànd ak moom jàppale bi ci gën a neex ngay jàppale koo xam ne ne xam ne ne yaa ngi koy jàppale waaye ñaan gi gën a neexit mooy ki ngay ñaanal nangoo wax amiin moo gën a neex ci ñaan yi Moodu nag yàlla boole ñu bokk fu nu dëkkoon ca parcelle. benn jamono dama ko wax ne ko Modou mu ne la béykat ma ne ko taay de damaa xaw a sori maa nga wakkaam mu ne ma man mi maa ngi lagrosse waaye la waral loola xin nag ndeysaan nee na ma nit fa nga xam ne fa la déggee daal yi day soxla boppam faaw mu am foo xam ne day soxla boppam man fànne waaye du teey nag la nga séqoon nag say nit nga wéy di ko doxal yàlla dogal ñu bokkoon tali moo dox sunu diggante dama dëkk unité 17 mu dëkk unité yàlla def ñuy ànd di ànd di ànd ba yàlla dogal dogal bi mu dogal ci kawam muy roi des arènes ñu ànd ci ak moom ci anam yu rafet mu taxaw ñaanal ko yàlla mu xalaat yu rafet anamu gunge ko ci façon yooyu la ñu àndee ba Modou yegg ci niveau bi mu yegg moom it mu xam ko xam kan mooy Serigne Cissé ndax damay wax ne man kereeg boo ma joxee sama cër attan naa ci yow lu ne kereeg boo ma xeñee sama cër nag mënatuma ci yow dara. ndax man dama lay fonk nga fonk ma dama lay yëg nga yëg ma waaye bu yëgeel amul fonkeel amul sëriñ Cissé day xam boppam ndax man dama xam cee famille bi ma bokk bu baax juddu ci deret ju riis fa tabarakallahu moo tax duma nangu ku ma caaxaanee duma nangu ku ma benn du ma nangu ku ma foxe moom it nag yàlla dogal fa tabarakallahu ci mbaaxam Moodu xam kan mooy Serigne Cissé staff bi ànd ak it Moodu it xam kan mooy Serigne Cissé ñu àndee ci noonu ba yàlla euh, def li mu def fa deuxième position ba ñu bokk pas-pas fa tabaarakallaahu loolu gën koo xeetal ci suñu jëm mu xam it kan mooy sëñ Cissé ah? loolu bokk na ci li tax daal Modou euh, lépp lum dugg rek ñu ànd caag moom ba yàlla defal ko sutura incha allah. Hmm. waaw mais ñu gis si Modou ki nga xamoon xam ne moom wax na ko sax. Hmm. bokk na ci mbër yu gën bëgg a misik. Hmm. ñu gis ni fi làmbam xawee commencé di bëreeg ñi xam te ne ñoom ñooy booy ku ci mm. mel ni Ama Baldé mm-hmm. gisoon nañ tamit ngeen communiqué ci mm-hmm. surtout yow nga communiqué ci mm-hmm. taxaw ak làmb bi ji ampleur bi mu amoon nga taxaw ne ci kattan yàlla ak mbaaxam Modou Lo day daan Ama Baldé ñoo gis ne audace boobu nga am combat bi ñu dañ cee ragaloon pronostiqué mais leen moo taxawoon nga taxaw dëggal sa bopp ku la laaj nga ni Modou day daan Ama Baldé man nag sëriñ Babacar da di sama sëriñ ñaareel ba ma sant Cissé mm. lu ma jomb am na waaye lu ma tiit amut am na loo xam ne danaa day rusa def nag rusa def danaa ko dee def waaye amuma tiitukaay léegoo li nga xool dara sa xel dal ca léegoo li nga xool dara sa xel du ca dal loolu la yàlla dogaloon senegal bi may wax ne làmb lay daan mbër demul stade ñu ko gëm ci réew mi bariwul waaye yàllaa ngi defee ne ngëm gi feeñee ci diggante Modou ak Ama Baldé ndax damay wax ne nit ñi danoo bari Euh, borom lax dañuy wax alhamdu mboolem xaaju cant yi lillaahi ñeexal na yàlla waaye ki nga xam ne nag mooy borom bi subhaanahu wa taala nit ñi nit ñi xaaj yi ñeent la soxna si am na koo xam ne balaa xelam da dal ñu ne ko saafara bii danga koy galax ndikoo buuftu ko ci miir bi wala nga buuftu ko ci asamaan si kooku xelam soog a dal am na koo xam ne balaa xelam da dal dañ ko naan fàllare gi wala téere bi da koy fexe wan ko sa adversaire wala da koy takk ci sa ndigg li wala balaa arbitre di siffler fexeel sànni ko ci sa ginnaaw kooku loola mooy dalal xelam kii lay dalal xelam mooy ñu ne ko butéel bi balaa arbitre di siffler na ko sottee ko kii nag moom xam nga lan moo ko dal moom lim gëm yàlla may na ko pas-pas ak yaqin goo xam ne bu ñëwee tàllal loxoom nga jàng fatiha ñetti peru salaatul fatiha yéene ko ko. moom xel ma day dal te xam ne la muy wutit dan yàlla dana ko ko defal waaye ñaan fi ko nit ñi bëgg a teg takk am na solo am na yoo xam ne force nga takk ko waaye bu dee ci cadre làmbu ñaari façon moo ca ne mbër ñaar da cay baax bu fekkee ne dañ ne kii dóor kan la loxoom baaxut tooke la dangay fexe wàññi dooleem wàññi dooleem mën nga ko def ci lenn mën nga degg benn xaati xaatimu musalas wala nga dagg xaatim murabaha jël aw turam def ko ca xadat xam adat boo am adat boobee nga am nag dangay jël gaas teg boo jëlee gaas teg ñu ne tey la làmb ji mbër yi dem nañu estaat commencé nga jël teg ko ca gaas ba turam di baax pour wàññi dangaram nga yor benn lim ci turam di ko tas xiir kon ko xam nga takk amagul fa wàll loola am na am na koo xam ne toog na ci wet gi ngir lan kii de ab dóor kat la boo ko bàyyee mën na la dóor nga toog di fas te fas ga lan nga koy def mu ne mën nga ko takk fenn ci ak garab benn wala mën nga ko sëf ci fu diis pour yaram wa nagab nga xam ne du am doole jum la pour maîtriser la kon ba léegi takk feeñagut muy wax ne kon yii yëpp bokk na ci bagaasum làmbu waaye li nga xam ne en général mbër di ko yóbbu ci làmbu li ci bëri Euh, bataille psychologique la làmb dafa bëri bataille psychologique loo xam ne nit ki dina ko def ngir soxna si pour perturber la nga bàyyi ci xel ndax bu sa xel nekkatul pour nga bëree du yomb kon nag bataille psychologique yooyu dangay dem ba da nga koy maîtriser ci lu baree baree bari sëriñ si si mu sëriñ Babacar ne la adduhaa u silaawul mu'minin borom bi nee na julli lan mooy ngàndaaye mu ne bu amee lépp loo xam ne bëgg na ko na ñaan borom bi subhaanahu wa bu ñaanee yàlla dimbale ko waaye Moodu mu ngi ñaan ñaanlu Moodu day ngemb li làmb laaj Moodu da koy def duñ ci bàyyi benn détail xañ na nag boo mënoon nit ki muy takki téere nga miin nit ki muy ngembu am façon bu muy mel boo gisatu loolu da ngay jaaxle waaye képp ku jege Moodu te xam Moodu da ngay xam ne Moodu ñëweewut loxoy kese ñëweewut loxoy kese fa tabaarakallaahu nit nag day màgg nooy yàggee ci mbir di am stratégie boo xam ne di nga ko mën a jàllalee say mbir fa tabaarakallaahu te yàlla dafa yaatu yàlla dafa yaatu bul ne téere bi feek nekkul ci ndiggam ni rek bu sa xel dal waaye ñeenti ñii ñëpp kenn ku ne am na loo gëm kii téere bee koy may fit kii saafara bi muy galax ndikoo kii li muy sangoo kii loxo bi muy tàllal nga ñaanal ko yàlla te mag ñu bëri ngi ci réew mi sëriñ Cissé xam leen du ñu yëkkati butéel joxe soxla boo leen mën a wax dañ naan la dékkal say loxo ñu jàngal la fatiha ñetti péréb salaatul fati te sunu maam Cheikh Omar Foutiyou Tall yàlla na yàlla yokku leeram te taaf ñu ci barkeem dafa waxoon ne bu si kii toogoon di jàng ñu ne ñetti péréb salaatul fati Cheikh Omar day wax ne loolu dafa ëpp soxla bu toll noonu newul ci réew mi lan la ñuy def mu ne nanu jàng benn salaatul fati rek doy na kon fa tabaarakallaahu sëñ Cissé waxam foofu la koy bâché wu takk nag fa tabaarakallaahu mënul ñàkk ci réew mi ndax xorom la ci làmbit nag waaye kenn ku ne li dal sa xel daal fa tabarakalaaw mhm. ngeen di euh, ngeen jëm ci bés boo xamante ni mhm. bés bi dafa wuuteeg yeneen bés yi mhm. ki ngeen di bëreel nekk xale boo xamante ni am na fu mu toll ndax tey mën nañu wax ni moo daan Balla Gaye Balla Gaye daan deux fois ki xamante ni moom mooy Modou Lo mu nekk combat boo xamante ni nag ci côté communication bi gis nañ nag waa kër Modou Lo dañoo xaw kii tuuti xaw a mel ni kon li ma wax rek relax beeg toog jàpp seen jàmb mais est-ce que réellement mën defoon ci waaye yàlla dafa bëri nu muy dogalee fa maa saa ak kaana wa maa yàlla li ko soob loolu lay def waaye rafet njortu ca la ngay def dafa baax yàlla boo koy ñaan da koy gëm boo ko gëmul nga tëj sa gémmañ gi man Serigne Cissé mu sëñ Babacar li may wax yàlla bu ma bindee plainte bi déposé ko yàlla na ko lii ma lay laaj nag jox naa la ko di ci sikki sàkk jarul may bind plainte man bu ma bindee plainte dama koy gëm barki sëñ Babacar kon nag lii nga moom lanu ñu ak Boy ñaa jàmbaar la doomi mbër la baayam mbër la xaan euh, Wàdd mi nga xam ne mooy ménageur mbër la Mansour Diop mi nga xam ne moom laa bokk ak pas-pas muy taalibi Seydi Hadj Malick mbër la kon defe naa ne ay mbër ko siq Burxaan Wàdd dajee nañ fii ñuy jiitee julli timis biñ pare ma ne ko mburu laa lay jëndal bu ma la jëndalee mburu boo ko lekkee li ma bëgg incha allah yàlla dañu ko defal ndax suma kal la kon ñoom ñooñu ñëpp ay mag la ñu ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal yàlla waaye ñaan nga leen ñaanal nanu am wér waaye bu lu premier li ma leen di wax nii nañ ma ko nangul bu lu premier nanu tëdd tëdd bu rafet moo daan leen ci barkib sëñ Babacar Si ndax man lii ma bëgg moom laay ñaan yàlla wax ji li muy bu bëree moodu laa bëgg mu daan booy ñaa bu gàttee moodu laa bëgg mu daan ko te daan ba mu koy daan ma koy ñaan yàlla maa ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala yàlla na ko daan jël bu kenn mësu gis ci réew la Ama Baldé xamoon bu ma sañoon moo xam ci fukkam fukkam ñu yen ko ko mbër la nag moo xam ne comme nag gone la dafa war bu arbitre sifflé rek mu dem ca kaw muuru nag man loolu laa ko bëggal loolu laa bëgg mu loolu laa bëgg moom xale la te dafa am lu mu war a woon Sénégalais yi dama bëgg bu arbitre sifflé mu mu mu dagg jéng yi songi waaja loolu laa bëgg te maa ngi ñaan daal borom bi subhaanahu wa yàlla mi nga xam ne moo yor ndam le premier janvier Modou Lo yàlla na dóor Boy Niang mu daanu ci barke yonent bi. Ah, mais ci kàddu golo nga ko gisee. golo baax na xam nga nit ñi léeg-léeg ñu jël benn challenge jox ko nit te xamuñ ga maanaam mandarga yi nekk ci golo dama ñaan ne Modou laaj nañ ko ko démb mu ne moom mbindaafoon la waaye moom nit la waaye du golo waaye nag golo yàlla may na ko ne am na manin manin ya ca moom ak njëriñ ya ca nekk li nga xam ne baatin la ca biir. man daal maa ngi ñaan yàlla yàlla na dal Moodu xañ na ñoom tur wañ ko wutal man de naqariwul ma man sëñ Cissé mu sëñ Babacar golo day wàcc lañ wax fa tabaarakallaahu maa ngi ñaan daal golo gii daal na gën a yéeg waaw uh-huh. te golo yéegkat la <laughs> mais yéen couronne bi dañuy dégg parfois ñu naan Modou Lo dañ koo samp si ñetti combat yeeg ay ñetti combat dégg nañ sax que ni Modou Lo su bëree ak Boy Niang xam nga day bàyyi làmb affaire yooyu mais yow loolu nan ko gisee waa xam nga loolu nag moom xamaguma ci dara dana xam du ba waaye daal ñun li ñuy ñaan mooy Modou daal yàlla na toog ba doyal ci courant bi seet nu ko neex defee ko mais waaw loolu daal la ñuy ñaan yàlla Moodu yor kurangam doxee ko ba nam ko neexee mm-hmm. mu seet nu mu def ak moom moom la ñuy ñaan yàlla yàlla nag doo ko ñaan di bàkku yàlla doo ko ñaan di bàkku waaye yàlla boo koy kerek boo koy ñaan di fëgg sa dënn bi rek échec mën na caa ñëw waaye ñoo ngi ñaanal Moodu daal ci xol bu set xol bu la ak ku nu am ak équipe bi ñu ànd ak yëpp mm-hmm. nañ bokk takku ndax làmb ji wax naa ne ginnaaw suba lay commencé muy dimanche dimanche yi guddi la làmb ji di commencé kon na ñëpp gën a takku gën a booloo gën a doon benn ba dimanche yi guddi liñ bëgg yàlla defal nu ko lundi ñu def confirmation bi ci daraja yonent bi. seen kii état de physique nan nga leen gisee ñoom ñaar gis nañ Modou dafa yokk par rapport ak Boy Niang. waa xam nga nag man mbirum physique <laughs> dama cee amul xam-xam xam nga man lu ma am xam-xam ci mbirum fàllare mbirum xaatim mbirum sarax loolu laa am xam-xam waaye état de physique moom bu ma ci duggee rek danaa danaa wax lu ma xamut ndax wax dëgg yàlla côté boobu soxna Fatma moom boo demee seeti course yi ñu dimbali la ci man daal ci mbiru euh, euh, ñaan yàlla ci mbiru nan nga yaakaare sa mbër ci mbiru ñaan ci nan nga ko yebee loolu laa gis man gisuma booy ñaan man Moodu gis ci mbiru ñaan yàlla ah. Moodu laa gis Moodu laa gis te moom laay ñaanal yàlla yàlla may ko ndam ci barke yonent bi waaw par rapport dañoo gisoon combat Ama Baldé Modou Lô ñu wax ci série vidéo mais tey vidéo Modou Lô ak Ama Baldé fuñ toll. pare nañ ci moom ak Boy Niang. am na ñu koy ñaanal te ay ñaankatu yàlla lañu làmbu xëccoo la waaye li ñuy xëccoo yàlla naa ko nangu ci seeni lox làmb dangay topp tabixamu nit ki topp tabixam ba xam saraxam ci mbiru sarax nag ngay fexe dëgg ba bu mbir bu ko téye woon ci loxoom sax nga nangu ko. kon saraxu ñu ngi ci de ñu ngi ci daal te insha allah ndem soob na yàlla ñu ngi ci te ñu ngi ko topp ak moom di ñaan borom bi li nga xam ne mu ngi ñu ko won nii yàlla bu ñu ci dara réer ci dara jëy Moustapha. non victoire mën naa fanaan ci kër xëy génn. nit dana dem signature léegi yóbbaale victoire ba afaa muy dugg këram ñu nangu ko waaye ñun daal luñ mën a téye yàlla bu ñu réer ci barke yonent bi ci géew nangu ko nag du ismulaay axasam benn sarax ngay xam rek def ko sa waay sa waay pertibeeku du xam fu muy aw te ñun li ma waxoon lépp loo xam ne xam nañ ko te mu mën noo sagal bisu le premier pare nañ pour def ko ndax làmb ji dama ci waxtaan ak mbër mi na ko nit du liggéey ba tollu ci benn benn benn benn état seetaan lu ñàkk xorom di ko yàq nit bu duggee ci mbir nit ñëpp yëg ne dugg na ci bu ci génnee réew mi yëpp yëg ne génn na ci man sëñ si mu sëñ Babacar noonu laa mel mbir mii ma dugg nag dama ci dugg desewu ma dara ku ma am dugg ci ba desewul dara ndexlan bis bi danoo ñor ñor gi mooy ne Modou def na pikin lu ne ba dese fa kenn kenn koko nag lañuy ñaan ci kattanal borom bi yàlla doole laan ñu renforcer Moodu doole kattan ba lam ci bëgg borom bi defal ko ko te ku ma amee dugal naa la ci mboolem kuy saalum saalum dugal naa la ci mbooleem kuy bawal bawal yépp dugal naa leen ci combat bi ne leen noonu ko ñaanal yàlla te àdduna ñaan rek la nit am ñaan gi nag xam nga lu ko waral mooy saay-saay si taxaw ci wet gi ne dañuy saboote waaye bu doon nit ak nopp muudoog boo ñaa kese. jarul ma génn dëkk bi bii yi Moustapha waaye ñu toog di saboote moo tax il faut ñu jël sunuy matuwaay ci mboole mi plan saboté kat yi duñ fi jeex ñoo xam ne ci dëkk bi lañ ne ne ci yëfi di saboté waaye saboté goog ñu nekk nag si ngay topp ñoom yow nga doyloo yàlla yëkkati pelant yo bind ko jox ko borom bi di ñaan borom bi li nga bëgg ci victoire bi yàlla defal la ko insha allah mm-hmm. pour yéen ñuy suivre sur Kewel Info ñu dalal ki nga xamante moom mooy sëñ Cissé bu Serigne Babacar Sy mm-hmm. bokk nag ci ki nga xamante ne moom mooy ci Mara Modou Lo ndax gis nañ mm-hmm. lépp lu Modou Lo xewle mm-hmm. sëñ Cissé da nga ko fekk mu teew di ci communiquer ba pare di ko ñaanal euh, fi may euh, li ñuy desee nag ci waxtu bariwul mais fi may jeexale mooy sëñ Cissé gis nañ ne euh, ren saison bi dañoo gis lu ñu lu ñu xaw a jaaxal. ñii ne arène nationale. Mm-hmm. saraxu arène nationale la. Mm-hmm. ñii ne dafa am loo te ne rabu arène nationale dafa bëgg vert mooy vert mm-hmm. gis nañ mbër yëpp. heure bu ñu ñëwee. war a chaque samedi ba dimanche verte gi mënuñoo fexe fexe ba du ci bokk lool lan la ngemb verte. waa bërëb boobu bokk naa ci sëriñ si njëkk a taxaw ne rawxaan bi nekk arena nanguwut gàllaaj sëriñ sépp mën nañ laa defaral lu baax. nga ñëw xamoo loo war a ngembee sa gàllaaj loo indi loo sottee ko mu doon ndox loolu moom fexe naa li may gàtt gàtt xam-xam fexe naa ba di découvrir loola arena place la bu yéemee place la boo xam ne duhut ku ne fa mën a jàllale gàllaaj place la it boo xam ne duhut fu la neex tegee fu cumbukaay place la it boo xam ne duhut ku ne fa mën a am ndam waaye yàlla mi nga xam ne mooy kartanal jaam di ko dimbale yàlla ak ñu fay baax mbër nag dañoo am benn slogan lu kenn def mu jàll ñëpp a koy def gisu la mbëri fi mu toll saa su ne boo làmb ñu koo gis buy ñëw dina wa wi ko ak cëxët dugg ak moom xob bu verte bi maanaam euh, turam dëgg caxat la dangay ngay gis ñu koy ràngoo di ñëw fa tabarakallah mu it muy muy garab gu yàlla barkeel waaye arena mbir la moo xam ne daal place ba moom makkaan la mu yéeme yéeme ndax avant arena gis ngeen na mu meloon kon léegoo li nga gis ñu def ab tali mu jaar ci aw yoon chaque instant nga gis fa accident noonu lay amee it ci ci lamb yi bërëb yi ndax place ba day am ñeneen ñu fay dëkkee ñu ay ay ay ay ñii ay ay mbindaafun yoo xam ne mbindaafunu borom bi lañu kooku nag bu fekkee ne da nga ko taxawal te ye ca war defula ko mooy waral yenn yi da ca am waaye boo xasee ba xam saraxu bërëb ba di ko def yàlla da lay suturaal luñ fay xëccoo rek nga bokk ca yàlla mën na laa suturaal nga jot verte bi lu daajal la rek xam nga léegi-léeg ngay dem ci bis ñu ne la bis bi nag li ci gën mooy ne booy dem na nga yóbbu couleur temps walla bu couleur ba bu cëpp na nga ko fexe nanga ko ca fexe eh, feeñal ko ca yaa ngi dégg waaye fi mu toll da ngay gis ne loola dippi loola am ba léegi da ngay gis ne ku ne day jël verre takk ca loxo ba wala mu takk ca tànk ba wala naa ngir di tojtal yooyu da ci am ndax làmb dafa sekkare ndax làmb ji keroog boo bàyyee sekk damay wax ne ku la gën a xeeb tegtal ci làmb ëpp lay defet ku la gën a fonke tegtal nag ëpp lay victoire ndax làmb tegtal a koy gañe ndax nit dana départ dem làmbu ja ñu ne ko wutal soccub daqaar moom nga war a duggee ji làmb ja ñii ñu ne ko tey fexeel sungu fu fuuf nga yore boo ne cëpp ci arène bi ba mbëri yi seen bët yem ci yow nañ la traversé euh, sungufu fuuf bi euh, ci ci làmb ja yaa ngi dégg ñu ne la kon balaa ngay dugg ci làmbu ji nañ la tegal juróom-ñaari poftan nga jéggi ko wala balaa ngay wàcce na poftan yi tege nga wàcc ko yooyu xeet la yoo xam ne mënul jóg ci làmb te façon yooyu dafa doon ci li nga xam ne mooy doxal yëfi soxna si làmb dafa ànd ak tegtal te ku bàyyi tegtal ya sa waa kër dina ñàkk reer ba tàyyi kon làmb ak tegtal ñoo ànd. fi may jeexale mooy règlement CNG benn biteel bi noo ko gisee. yéen ñuy ay ah, baax na de. baax na de. làmb de boo ko mënee préparé dëgg. saa hmm. bouteille it mën nga ko préparé. ndax man ci bataay bi ma xam ci làmb c'est ma yëkkati mbër sax jox ko butéel wala bu ma demoon ba yëkkati di jox bouteille yi du ci passé benn bouteille na la jox la ko li ci des sama kër laa koy defee kon man awma problème booba waaye nag mbër mii fukki butéel di dalal xelam. boo ko xeñee loolu bu daanoo yaa ko teg ndax mbëri am na ci ñoo xam ne fukki butéel yee dalal seen xel am na ci koo xam ne bu amul fukki butéel fii tamit du fa ne kon ki fukki butéel war a dalal xelam nañ ko may mu def fukki butéel rek waaye nag CNC ñoom nañu xam ne ñoom ak mbër yi ñooy ànd ñuy charge yi ñu koy ñu ko ñu koy bañ a diisal te di ko woyefal ndax loola it am na koo xam ne dagg na bii dem ca kaw stade ba butéel yee ko ca neex am na koo xam ne sinoor gi sinoor gi nga xam ne mbër buy bàkku moom lay sànni mu traversé ko looloo ko ci neex am na ci koo xam ne bàkku baaku fa yóbbu am na ci koo xam ne leneen leneen le moo ko fa yóbbu kon yooyu il faut ñu koy bàyyi xel di bàyyi bàyyi wante xel comme que ñoom ñoo bokk luñ mëntu séddoo ndax mbëri bu ñëwul làmb do kon CNC afa CNC mbër kon bu ko defee ñu mit ñu comprendante bàyyi wante xel te yërëmante te bañ a bàyyi xel garaat bi ci seen loxo loos bi rek ndax lu fi waay jiite bise ngi ci bisi doo ko jiite keneen jiite ko kon nag boo leen jiitee da leen may loo xam ne chance boo xam ne seen xol daal dana ci sedd incha allah dem soob na yàlla. di leen ñaanal yàlla tawfiq ak sutura bu ñëwee yàlla mi kàttanal kàttanal Moodu Moodu dóor leen ñu daanu. Hmm. maa ngi koy ñaan de bu ma sañoon na magam am seen muute woon ci suuf sa hmm. yàlla may ñu ndam lu mel noonu mu tibb ci suuf si. kon maire parcelle man lu dul maire de parcelle sax bu ma maire Pikine nag. nu nu grade bi gënoon a fooree bu ma ko mënoon am Pikine bëgg naa. maire Pikine maire parcelle dina xaw a doy waar. maire Pikine maire parcelle. non day baax. moo instant bi Moodu mooy roi bi kay mooy maire parcelle mais bu bëgg a nangoon maire Pikine day. <laughs> loolu bu amee baax rek lay def ak neex <laughs> baax ak neex rek lay def loolu daal bu ko yàlla dogalee neex ak baax rek ka cay ne. Uh-huh. Euh, euh, te damay waxi ne làmb bum tax nga wax déggool lu ñaaw làmb bum tax nga wax Mansour Diop lu ñu aw uh-huh. suñu père Mansour Diop. Uh-huh. làmb bu mu tax nga wax it Père Bourkhane wàddu lu ñaaw mm. ndax day jeex kon lu mën a am na mm. nanu xam ne am folo moo xam ne yàllaa ko wàcc fii ci sunu réew yàlla boole ñu ci kon kàddu yi lu mën a bari bari ku ne sañ ngaa faral nag euh, kala neex mm. sañ nga ànd ak kala neex sañ siisee Modou la ànd ak Modou lay ñaanal Modou lay protége ka ànd ak booy ñaaxit it bu mu tax mu xas sañ siisee wala muy xas ñooñu Modou waaye ki ànd ak Modou yi bu tax mu xas booy ñaax c'est pas bon man sëñ Cissé d'accord ma loolu kenn ku ne lay sa lay sa def ko te bañ a déborder bañ a wax nit lu koy naqari wala di ko sosal ci ay kàddu yooyu doxut ndax mbir yi day jeex ñu war a daje ci ngénte yi daje ci ciin yi daje ci dëj yi te yooyu yëpp bis la ñuy dajee kon na mbir yi di rafet bu ko defee rek yàlla baaxal lépp te naan leen waaqiru dëxwaana xanil hamdulillahi rabbil alamin wasalaamaaleykum jëri ngeen jëf amoon mbégte contentement pour yéen doon suivre sur Kewel Info ñu tàllaloon sëñ Cissé bu sëñ Babacar kon ni ma ko waxee rek di ko ñaanalaat ah gudd fan ak wér mm-hmm. yàlla ar ko yàlla sàmm ko yàlla suñu ganam mu koo xam te ne wax wax dëgg yàlla man dama koy estimer dama ko bëgg ndax ki nga xam te ne lañ boole muy maam Babacar mii nga xam te ni sama maam sama xarit mu nekk koo xam te ni wax dëgg yàlla dañ koy bàyyi ak yàlla suñu borom mu nekk koo xam te ne kon ni ma wax rek suñ jàqee moom la ñuy woo mm-hmm. kon donc buñ gisee suñ bokk pas-pas boo xam te ne bëgg nañ ko bañ koy dàqalanteeg moom rek mm-hmm. loolu du hasard ndax turu sëñ Babacar képp ku ko jël rek